di toolu fiq di rafetlu bu baax i tamit positif bi ñu gis ci mbokk yi ci barab yu faccantikoo gannaaw bu ñu defee dërsu bu njëkk bi ci tool bile muy wane bëgg gi jullit yi bëgg seen diine yal na ko yàlla yokk te nangul ñu mu mel ni démb jàngoon nañu lu fiq di firi ñu tuddoon ca ne mooy xam àttey sharia yi aju ci jëfi mukallaf ak waxi mukallaf te ñu jële ko ci alquran ak sunna ak ya ca aju ci anamuk faram fàcce kon dina baax ñu xam bon la nay al ahkaam al sharciya gannaaw xam-xamu fiq mooy xam al ahkaamu sharciya al ahkaam jamcu la ci xukmu xukmu mooy qadaau moo tax xaakim ñu koy woowee qaadi atte bu dee ci istilaaxu boroom xam-xamu fiq yi xukmu huwa maqtadaahu xitaabu sharci almutaallaqu bi afaali almukallafina min talabin aw taxyirin aw wadin alxukmu maanaa xukm ci istilaax alfuqaha mooy li xitaabu mooy discours sharia bi aju ci jëfi mukallaf yi moo xam sàkku la wala tànnal wala maanaam wala tànnuloo wala tëral le discours ba di exiger ci ñett yii loolu la ñuy tuddee atte alxukmu fi lcharci xitaabu rabbina almuqtadi ficl almukallafi ftunaa bitalabin aw idnin aw biwadci lisababin aw charti nawdi manci li sababin aw chartin aw di manci maanaa attey sharia ñaare xaaj la atte bu ñoo tuddee alxukum ak taklif yi ak atte bu ñoo tuddee alxukum alwadaci atte bi ñuy al alxukum ak taklif tuddee nañ ko xukum taklif yi ndax dafay togg mu bi mu jëf mbaa mu bañ a jëf mbaa mu tànn diggante jëf ak ba alxukumul wad'i dafay tëralal mukallaf bi luy tax jëf da ca sababoo wala luy nekk condition jëf wala luy tere jëf am mooy sabab charte ak maanaa xaaj bu njëkk bi ñu leeral ko muy alxukum at taklifi ñu wax ne dafay jëfloo dafay sàkk mukallaf bi mu jëf mbaa mu bàyyi mbaa mu tànn diggante jëf ak bàyyi ana luy loolu bu ñu bëggee firi loolu dañuy wax ni al ahkaam at taklifiya dafay séddalikoo juróomi xaaj al ahkaam at taklifiya juróomi néeg la am kër juróomi néeg la néeg bu njëkk bi mooy al néegu ñaareel bi mooy al néegu ñetteel bi mooy al mubaaxu néegu ñeenteel bi mooy al manduubu néegu juróomeel bi mooy al makruuhu al waajibu mooy lu war al mooy lu xaraam al mubaaxu mooy luñ daganal al manduubu mooy luñ sopp al makruuhu mooy luñ bañ wala luñ sib pour faram fàccee loolu borom waraqaat nañ ko déglu mu ne fal waajibul maxkuumu bithawaabi fi ficlihi wa tarku bilciqaabi wa nadbu maa fi ficlihi thawaabu wa lam yakun fi tarkihi ciqaabu wa lam yakun fi tarkihi ciqaabu wa laysa fi lmubaaxi min thawaabi ficlan wa tarkan bal wala ciqaabi wa daabitu lmakruuhi aksu ma nudib kadalika alxaraamu aksu ma yajib mu ne falwaajibu almaxkuumu bithawaabi fi fiilihi wa tarku bilciqaabi nee na waajib mooy loo xam ne boo ko defee am yool soo ko bàyyee am bàkkaar mooy lu war fal waajibul maxkuumu bi thawaabi fi ficlihi wal maxkuumu fi tarkihi bil iqaabi wa tax sopp mooy nadbu mooy loo xam ne boo ko defee am yool waaye soo ko bàyyee doo am doo am yadaange deesu la mbugal lu dagan nag mooy loo xam ne jëf ga ak bagaayam boo jëfee doo am yool doo am bàkkaar boo bàyyee doo am yool doo am bàkkaar makruh mooy loo xam ne soo jëfee doo am yool doo am bàkkaar waaye soo bàyyee am ca yool soo jëfee doo am bàkkaar waaye soo bàyyee am ci yoon xaraam mooy lan mooy loo xam ne soo jëfee am bàkkaar soo bàyyee am yoon kon xaraam mooy safaanu lu war makruh mooy safaanu luñ sopp mooy safaanu luñ sopp moom la borom ibnu Ashir di wax ne aqsaamu xukmi sharci xamsatun turaam fardun wa nadbun wa karahatun xaram humma ibahatun fa mamurun juzim fardun wa duna aljazmi mandubun wa sim du nahyi makruhun wa mahat min xaram mazunu wajhayhi mubahun dha tamaam du noonu misaalu loo xam ne soo defee am tiyaaba soo bàyyee am bàkkaar mooy julli juróom soo ko jullee farata la nga am yool soo ko bàyyee bàyyi nga farata nga am bàkkaar misaalu loo xam ne dañ ko sopp mooy naafile yi ngay def balaa ngaa julli tisbaar wala tàkkus balaa ngaa julli tàkkusaan wala boo jullee timis ba noppi wala balaa ngaa julli gee wala boo jullee gee ba noppi wala ñaari rakka yi ngay julli balaa ngaa julli farataay fajar soo ko defee am tiyaabo soo ko bàyyee doo am bàkkaar luñ sib lu ciy misaal mooy julli ci waxtu yi nga xam ne dañ caa sib ku julli ku julli niki diggante boo jullee suba ba bi jant bi di fenk soo ko defee doo ci am bàkkaar waaye soo ko bàyyee am ca yool <clears throat> ana luy misaal ci loo xam ne dafa xaraam mooy lu mel ni ak sàcc soo ko bàyyee am yool waaye soo ko defee am ca bàkkaar ana luy misaal ci lu dagan mooy lekk ak naan soo lekkee doo am yool doo am tiyaabo doo am bàkkaar soo bàyyee doo am bàkkaar doo am yool ci tënk lool sax lii mooy juróomi néegi al ahkam at taklifiya allahu dinañ waxtaan ak yéen ci benn bu nekk ci faram-fàcc maanaam dinañ jagleel waajib bindub lëmm bu sobe yàlla léegi nag beneen xaaju atte sharia yi nga xam ne moom lañ wax ne mooy al ahkam ñett lañu kërug ñetti néeg la wala appartement appartement trois chambres la moom la ñuy tuddee al ahkaam al wad'iya mooy loo xam ne shari'u daf ko teg muy sabab wala muy charte wala muy empêcher def dara li sharia teg muy sabab pour nga war a def dara mooy lu mel ni iqaamatu salaa taxawal julli yaa ayuha alladina amanu ida qumtumu ila salaati faxsilu faxsilu wujuhakum faxsilu wujuhakum wa taxawal julli mooy sabab ci waruk njàpp ak càcc moom la sharia teg muy sabab ci waruk dagg loxo ko def ana luy misaal ci lu sharia teg muy charte maanaam muy condition ci war a def dara istitaatu ci war a aj maanaam mën a aj condition la ci aj nekk farata ci yow xam nga aj farata la bil jumlati waaye nag pour mu nekk farata ci yow moom nga war koo def fokk condition bu istitaatu am walillahi ala nnaasi xajjul beyti man istataa man istataa ilayhi sabilan mu def tamit ay seede ñuy condition ci wérug ab sëy ndax yenoon sallallahu alayhi wa sallam moo laa nikaaxa illa bi shaahidayn laa nikaaxa illa bi shaahidayn wax na it laa illa bi waliyin wa shaahiday adlin ana luy misaal ci lu sharia def muy maani ba lu waroon am dootut am dafay tere ko waroon a donn donn kam waroon a donn nit ki su fekkee ne war nga ko donn soo ko rayee rek dootoo ko donn laysa lil qaatili miraas ni ko yonentu sallallahu alayhi waxe wala lu mel ni mbërëg julli dafa war jigéen waaye su gisee règle règle ba tere ko julli su gisee deretu wasin mu tere ko julli kon nag atte sharia ngi noonu ñaari xaaj la xaaj bii moom lañ tuddi aqsaam taklifiya kërug juróomi néeg la mooy juróom yi nga xam ne tudd nañ leen lu war luñ sopp lu xaraam luñ sib ak lu dagan xaaj bi nga xam ne mooy ahkaam watiya mooy ñoom ci seen bopp duuñ loo xam ne dañ la ko togg waaye dañ koo teg ci sa digganteeg liñ la togg benn ñu cay ñu nekk ci di cause wala ñu nekk ci di condition wala ñu empêché ba yooya waroon a am dootul amati moom lañu ñuy tuddee al ahkaam al ñetti néeg la kër googule am muy sabab te mooy cause muy charte te mooy condition muy maanea te mooy aji tere ni ki ñu waxee ko léegi ci xadis ji laysa lil qaatili laysa lil qaatili miraas hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu liy xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dinner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawara nee naa la imam Mountakha Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ca Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy woote muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha Sakho bis ba agsi na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne na ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da nga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla imaam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko bis baa ngi noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island